pare nañu ah en tout cas de euh, li ma gis ren mooy on va vers une présidentielle boo xam ne dina bëri ay inédits mhm. y aura beaucoup de d'inédits dans cette présidentielle mhm. boo ko xoolee depuis ndorteel ba ba ci démb ba ba ci tey ji ay inédits kese ngay vivre te pareeguñ ci inédits yooyu mhm. mais li wérte wóor mooy campagne bi ah damaa ragal ne traitu oustaz yi la nar a doon <laughs> parce que du am c'est vrai meeting ñëpp xam nañ ne ay animation musicale ñoo fay am. Mhm. ay fecc ay sifflet ay tëgg ak yooyu. mais en plein weeri koor est-ce que loolu dina mën a possible dans la journée. Mhm. ma jàpp ne xëy na ren oustaz yi ñoo aye ñoom mhm. moomee vent ñoom la taaj bu ñu conférence ba pare leader bi jàllale programme am. dañ ko def diine ak jamono rek diine ak jamono rek <laughs> mais sinon bu dul loolu moom ça va ñu tenir une campagne comme ni ñu uh-huh. ko daan defee at yi jëm. Uh-huh. Euh, mais il faut souligner Euh, conseil constitutionnel démb ba muy jàpp date. Mhm. dafa dépassé romb ay prérogatives am. parce que conseil constitutionnel mënul joxe datu élection. parce que mhm. du moom mooy organiser. pour une première dans l'histoire politique. du mhm. Sénégal ou bien de l'État indépendant du Sénégal conseil constitutionnel di joxe date. moo tax su ma gisee ñu bëri démb doon euh, jubilé ci conseil joxe na date dama ne ñii est-ce que xam nañ luy état de droit. est-ce que ñi xam nañ délimitation des différents pouvoirs. Mhm. parce que bu ñu ko xamoon bu conseil joxee date dañu war a tiit. parce que conseil warul joxe date. Mhm. ak nu mën a am conseil constitutionnel loolu d'ailleurs rectifié na boppam tey. ci lu mun musul nangu ba mu dooree processus ba léegi conseil musul teg tànk teggi c'est lu mu mës a teg dafa avancer mhm. waaye bii dafa de gi ne dama romboon samay sañ-sañ ba joxe date mais président mi ko war a joxe comme joxe na ko mën naa ci moom ah loolu kon conseil dinay reconnaître ay erreur muy beneen mbir bu conseil wane ne moom ndeke moom mën na di revenir ci ay décision parce que mhm. démb euh, li wàcc c'était une décision mhm. te décision conseil constitutionnel nee nañ amul voix amul recours amul teggi amul dara amul rectifié mhm. mais reveniraat na ci décision pour une première kon mënoon na kon ci yeneen candidature yi li ñu ko doon solliciter pour mu xoolaat ko le conseil avait l'amabilité di revenir mais ci datu élection bi rek le juge ne dina ci revenir nangu ni du moom moo waroon jox date mais président de la république moo war a joxe date. Mhm. ce qui prouve que y a des couacs. liñ doon wax ci processus bi man tey laa ci gën a tënku. Mhm. parce que yii ma gis comme procédé dalalul sama xel. Mhm. bu dalalul sama xel yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci kanam jour résultat dina gën a leer ce qui se passe là c'est un spectacle désolant mhm. et de très mauvais goût mhm. parce que lii muy mujj ak la muy juri du baax ci Sénégal mhm. du renforce suñu démocratie bu ñu demee ba pouvoir yi ku ci nekk da ngay dem di tekkatal sa morom loolu nit ñi ñi koy tàccu dafa mel ni république bananière moom la ñuy soxla mais bëgguñu république buy respecter charte yi ak normes yi mais aussi euh, pouvoir yi ku ci nekk exercice bi mu war a def mu def mu mhm. mën koo mëtal mhm. d'ailleurs le décret bi nga xam ne président ci la convoqué démb le corps électoral mun nañ ko attaquer à la Cour suprême parce que dafay euh, dindi respect wut 21 jours de campagne. te loolu dafa nekk ci code électoral bi. Mhm. article LO 137. Mhm. du code électoral. loi organique la loi organique dafa bokk doole yem doole ak loi constitutionnelle. Mhm. léegi loolu lañu ñu jël daal di ko ñàkk respecte ci. Euh, délai 24 mars bi nga xam ne moom la ñu convoqué le corps électoral kon du ñu respecter les 21 jours mhm. et tout le monde accepte mhm. bizarrement pour aller aux aux élections pare nañ pour tous les sacrifices yi nga xamante ne tous les sacrifices yi nga xamante ne moom la laaj à mhm. quelle fin je demande pourquoi ñuy bañ a respecter li nga xam ne mooy suñu constitution. te tey conseil constitutionnel moom moo prêter euh, le flanc parce que moo dem ba dugg ci garde président de la république quand tu la décision Khady. le conseil dafa dem sax bay remettre en cause report élection bi. di wan le président de la république ne ko amoo woon benn argument bu valable bu taxoon nga reporter élection yi. Mhm. comme si on veut désavouer le président de la république. dafa mel dañu bëgg wan président ne ko yow doo dara. li nga def nii amul njëriñ te ñun li ñu wax mooy am. bras de fair boobu pour lan la. conseil constitutionnel kañ la daan amal bras de fer avec le président de la république. Mhm. qu'est-ce qui a entre temps. Mhm. mais man doon bi ma ci gis mooy parce que on a un président qui ne pas candidat à sa réélection. Mhm. loolu moo tax tey président conseil taxaw braqué wu. parce que depuis la début du processus la conseil s'est braqué devant le président lu mu fi teg mu teg teggi. décret mu annulé. loi bu assemblée voté mu annulé. dialogue boo xamante ne am na majorité des parties prenantes yi sekk processus bi oui ou non mais y avait des forces vives de la nation. un peu de respect quand même pour les gens qui étaient à jam en train de discuter des intérêts ou bien des questions d'intérêt national. mais comme si ñooñu seen daje boobu dañ leen bëgg a wan ne leen xawaare la woon. Mhm. amul da ngeen namante woon daje ngeen joxante ngeen loxo waaye li ngeen fa wax yëpp ñun ça ne nous engage pas. non mais attention. Mhm. on joue à quoi. Mhm. c'est pas que dañu cautionner sa dialogue mais quand am na consensus yoo xamante ne des consensus su amee conseil constitutionnel il a le devoir de euh, militer en faveur de ces consensus parce que loolu mooy jàmmal espace politique bi mais conseil constitutionnel ñëwul pour di gën a indi na ci espace politique te décision bi mu mujjee jël demb da ciy bokk mhm. parce que su fekkee dañoo dem di dialoguer am lu ñu tënk mu jël li ñu tënk yépp sànni à la poubelle mhm. loolu c'est manquer de respect non seulement au président qui a les gens ñu dem di dialoguer mais aussi à ces personnes mhm. qui étaient repré euh, représentées donc voilà la question man loolu laa gis ne ci loolu la ñu war a jàngat mhm. mais man nekkuma ci di jubiler parce que conseil constitutionnel joxe na dat ndax loolu du prérogative am loolu lu ñu war a ñaawlu la lu ñu war a déplorer lu ñu war a méttitu la parce que dépassé na sañ-sañam kon conseil mën na xëy décrété des résultats ah. mhm. comme nee nañ lu mu wax dafa mel ni alxuraan. Mhm. kon bu ñu élection yi ba pare conseil mën na xëy décréter ni résultat bi nii la demee kii mooy jël doon président. mais euh, piir je dis mhm. pire. Mhm. conseil dafa teg président ci benn barrière mooy soo demee élection avant le de mën naa la may bu dee second tour am na nga continuer jiite réew mi. mais avant le de soo organisé wu élection ma teg fi président de l' assemblée nationale. ay ah, yéen conseil bëri na doole de. <laughs> vous vous rendez compte. Mm-hmm. le conseil constitutionnel maintenant c'est